kon ñu ngi wax sénégalaises yi ak sénégalais yi di wax militant ak militante parti alternative sénégalaise ni tey dañu tase fii ci suñu permanence muy permanence su parti alternative sénégalaise pour waxtaan wax naka lañu ñu nar a taxawee ci élection yi nga xam ni dañu ci jublu moo war a am le 17 novembre 2024 mais bala may sori ci loolu dama leen di wax loo xam ni jot na fi jaar ndax lu toll ci quatre coalitions de partis et de mouvements nekk de coalitions candidates à candidature ñëwoon nañu seetsi si le parti alternative sénégalais benn coalition bi dikkoon na waxtaan ak parti bi pour bëgg parti bi ànd ak ñoom ci élection yi mais place yi ñu doon proposé pour suñuy membre nekk ko ci list ba loola moom la ñu juboowul ak ñoom ba tax suñu ànd ak ñoom nekkul ñeneen ñi ci des ñëwoon moom di sàkku pour parti alternative sénégalaise jàppale leen ci élection yi nga xam ni moom la ñu dëgmal comme ni ñu koy defee nag saa su ne ginnaaw ñooña ñett lañu woon ci la ñu woote assemblée générale extraordinaire pour mën a prononcé wu. loolu itam bi ñu tasee membres yi nga xam ni ñoo nekkoon militants yi ku ci nekk jël na kàddu wax ki mu àndal motiver aussi lan moo tax mu ni kii la bëgg a àndal ba ñu ko defee ba membre yëpp daj ci lañu ñu jëlee la coalition àndu nawle ndax moo rawoon ëppoon ñu ko faral ca mbooloo ma kon nag loolu lañ ni tey dinañu tase bu ñu tasee wax ni élection yi ñu dëgmal le partie alternative sénégalaise décidé na porter la candidature de la coalition ànd àndu euh, nawle battre campagne ak moom voteel ko te jàpp képp ko nga xamante ni mën na laa wax nga voteel ko aussi mu voteel ko loolu kon moo doon sababu ndajam tey mii di leen sant bu baax di leen gërëm ndajam tey mii nag ndaje moo xam ni dañ ñoo tënk ci tënk bu rafet tënk bi mooy dañoo jub si ay élection Sénégal nag benn parti képp mënu fee gagné ay élection loolu moom daq na fii ay ànd rek ñoo fi ne ànd nawle wala ànd naxante képp mu fi nawle yi ñooy ànd naxantekat yi ñooy ànd ginnaaw parti bii Omar Badiane moo ko tëgg bàyyi ko fi fas ñu yéenee naxante képp koo xam ne wala ñoo xam ne dañoo ñëw fii ñu juboo ak yow ci kaw kàddu ñu ànd liggéey ku ñu jot nag ñi ci élection yi boo fi ñëwee donte da nga ñu jox ñaari place yu député yu wóor du tax nga moom ñu du tax nga jënd ñu pas de corruption ici li wóor daal te mën na nekk mooy dañuy ànd liggéeyal Sénégal mais na ñun dañuy nooyee zone nord ndax nag yàlla dafa dogal ñun fii dañu yàlla sédde ñu dëkk fi te zone nord du zone boo xam ni euh, zone bu tuuti la zone bi ci ñu am at yu xaw a bari tuuti amoon na benn parti bu ñu woowee plan Sénégal ñu ko doon animé fii nañu bokk fii zone nord gi ku nekk Sénégal dégg nga la ministre Mantoulaye Diène képp ku dëkk fii wala nga nekk Sénégal di politique dégg nga sur le plan Sénégal ku ñuy wax Omar Ndiaye bu nekkoon euh, chemin de fer. il a été le premier député indépendant dafa lii mu ne du ma ko def li yaay def ñu ngi ko kon dàqal mënu leen ma dàq te juróomi at yi matul kon nag damay indépendant taxaw fay jàpp sama jàmm il a été le premier zone nord gii la dëkk zone nord boo dama kéema El Hadj fa la Ousmane ministre des finances nekk mais kon fii jaloore politique yàgg na fi te it en passant je suis la première phrase du code électoral fii nañu ko bindee fii à la zone nord fii la ko général lamisi si bindee tey ji le représentant de liberté de info euh, abouli ci ger ker googu la yem tey kon zone nord dafa am histoire politique dañu koy exploité nag exploité wuñ ko pour des affaires personnelles mais dañ koy exploité pour toute la population ba tax na li ñu gis ci ànd nawle ñi ko composé nekk nañu ay nit ñoo xam ne wér gi nekk ci ñoom bokkul ak ñi nga xam ne dañoo wékkee dañoo wékkoo saagu njublan dañoo wékkoo saagu tas yaakaar dañoo wékkoo saagu jariñoo la ñooñu euh, day ñu ànd nawle li ñu gis ci ñoom ak nit ñi leen composé mën ñoo am na ñoom fii bu suba te mu wóor ñu Omar Badiane mi nekk ci suuf am na ko ci naqari daf ñuy gërëm def ñuy sant fee mu tëdd nii fi mu nekk nii kontaan na ndax ñi war a toog fii toog nañu te ñuy wax it te ñuy wax ci loo xamante ni bu fi toogoon du wax lu ko ëpp. donc je dis sénégalais sénégalais militants et militantes du parti alternative sénégalais nous voici réunis ici au niveau de la permanence de notre parti pour dire à l'opinion nationale et internationale la décision que nous avons prise pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Mais avant cela, nous commencerons d'abord par vous dire que quatre coalitions candidates à la candidature ont contacté le parti. L'une de ces coalitions avait demandé à ce que Alternative sénégalaise soit membre de leur entité. Mais le parti a décliné l'offre car les places qu'elle avait réservées sur les listes pour nos militants ne nous intéressaient pas. Quant aux autres, elle sollicitait le soutien du parti. C'est ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour les départager et se décider. Après que chaque membre ait pris la parole pour dire son choix en le motivant, la coalition André Naoulé est sorti premier du lot. Donc, à l'issue de l'AG euh, extraordinaire, le Parti alternatif sénégalais a décidé de porter la candidature de cette coalition et contrebattre campagne et voter pour elle. beaucoup. Je vous remercie. très important qui la politique de notre pays, le Sénégal. Contrairement aux autres coalitions, alternatives sénégalaises, suivant toujours les pas de feu Omar a fait son choix par rapport à la coalition en Un parti où on notait l'intégrité des hommes qui, qui la compose. Une coalition où nous avons noté des hommes qui ne sont pas médiocres pour emprunter l'un de ses responsables, li un parti qui ne se soucie que de relever le niveau de vie économique et social de son pays, en particulier de sa commune. Choix ne peut être plus judicieux que d'être aux côtés de l'alternative pas un pas sans nous. Aujourd'hui, nous portons garant de votre victoire. Alternative sénégalaise se porte garant de la victoire de cette coalition. Par rapport aux autres qui sont venus nous comme l'a dit tout à l'heure le coordinateur Hassan Sek, le parti alternative sénégalaise n'a pas d'ambition démesurée. Son seul souci, c'est de relever le niveau de vie économique et social de ce pays, comme l'a voulu son président Omar Bayan. Malheureusement, nous constatons que certains partis, certaines coalitions ont transformé notre chère sénégalaise en une vaste fossé de singes où hypocrisie, mensonge, arrivisme et opportunisme se partagent les chaises. Contrairement à ce que nous, avons vu, à ce que nous avons constaté sur cette coalition en Nounaulet. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, moi qui suis chargé des élections et de la vie du parti, au nom du Parti alternatif sénégalais, déclarons haut et fort que ces élections nous soutenons en les élections législatives de novembre prochain.